Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur xibaar yu wér te wóor sama yaay mag na ko tere xam naa ne li ma dund te na waar ma ko jë bul jooy bul jooy xam na ñu waxtaanee gën a ko mm-hmm. yàlla ko pare mm-hmm. nekkoon neex na lool mm-hmm. sa dëgg rek man maa ngi jégul man damaa gaaw jooy nag man moom su ma kontaanee damay jooy su ma bëggee damay jooy su ma damay jooy moom c'est comme ça ni daan mel ngeen jégal rek mu ma sama yaay dafa màggat xam naa lu ma dund ak moom du ma ko dundaat xam moom noonu lay waxee li ma dund ak moom duma ko dundaat te dama koo bëgg a teral ak Seydina Muhammad mu duma ko dundaat naa affaire yi gën a gaaw moom koo teral te wax jooju wax jooju wax moo booy yaay góor laay booy jàmbaar nga ne ko dara yàlla baax na lépp dina baax booy ñun ñun liggéey ci aar yàlla dinañu ko fay te doonoo jàppale ay at xale yu bëri loolu lépp du échec li may wax nag mooy ñi nga xam te ne ñoo nekk ci aar bi ñooy suñu kilifa waaw lii de moom dama koy jox Pa Moussa Sonko ak Ndeye ak Moussa ak Papa Ndiaye ci ñoom ñi xam ñooy suñuy mag parce que ñun suñu association bi muy déroulé dafa am kilifa dafa am yoon dafa am ni muy doxee kenn ku ne am na lu la fal pa Pa Moussa mooy suñu président ñëpp fecckat yi man ci wàllu communication bi man maa ko yore lépp lu mu war a wax rek man ak Cheikh naa Fall ñoo ko yore Aziz Dabala wàllu organisation bi moo ko yore woon mm-hmm. kenn ku ne am na loo ci war am na loo ci yore ñu koy doxal muy mag mais ñooñu tey laay laay jébalaat mbir mi ñooñu suñu mag ñu jéem ñu jéem képp ki nga xam ne Aziz waxu ko de ay mbokk Aziz waxuñu ko de mhm. sama sama yéene la ak sa gis-gis sama gis-gis ñu mhm. jéem xool ñun utee ñun taqalee benn somme bi mhm. def benn bon volontaire bi nga xam ne tey dañu dugg ci nit ñëpp ak xaritu nit Aziz Dabala yëpp képp ki nga xamoon ne bëgg nga jàppale Aziz wala yéene nga ko woon def ci sa doole ñu liggéey ci benn somme bi nga xam ne tey dañ koy jox famille Aziz comprendre nga parce que dee moom kenn mënu ko kenn mënu ko kenn mënu ko kenn mënu ko dara mënu koo remplacer. Mhm. mais tey ñu yëkkati benn somme bi nga xam ne tey nañ ko ket ci gars yi parce que Aziz yi nga xam ne ñoo ngi def lu baax xam nga ñoom xaalis boobu tey jël yóbbu ko. ngeen jënd ceeb jënd diwlin ceeb jënd revêtement yëpp yóbbu gaa lépp lépp jël somme jox ko jox ko jox seen famille. Mhm. parce que moom loolu moo nekkoon rêvam. moo doon rêvam ndeysaan. Mhm. wax nga lu am solo Makhoudia. du am solo. loolu damaa xam li ma lay wax. Mhm. loolu nag organisation la xam li ma lay wax. Mhm. maa ngi koy maa ngi koy dénk ñoom Pa Moussa. Mhm. ak ñoom Ndeye Gueye. parce que tamit may wax Pa Moussa ak Ndeye Gueye. seen taxawaay rafet na ah, que boo nekkee say rak ñeneen ñi ñëwul moom du ma wax dara du ma leen balaabale. xaw ma comprendre mais ñoom ñu ma gis. wax dëgg fa yàlla seen taxawaay rafe na trop Pa daw leen. Ankuleel chaque jour yéen a ngi ci Ndeye Gueye chaque jour yéen a ngi ci te boo xoolee boo xoolee ñëpp benn la ñu ñëpp ñu ñëpp benn la ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay tey maa ngi ñaar yàlla suñ borom li may wax nii dana ko yàlla nangu jug dugg ci nit ñi ñu jàppale famille Aziz macha parce que waxuma xaw ma soxla nan ko xaw ma soxla woon ko mais Aziz loolu moo nekkoon bëbëtam mhm. pour teral yaayam teral famille mhm. mais comme que moom dem na mhm. ñu ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ñu jéem a def li laay war a suul yi du yalwaan de du yalwaan de yalwaanun de ñaanul ketun damay tabax mu teel a leer yalwaanul ñaanul ketun mais dama xam ne bu buñ ko defee dina am solo ci famille Aziz. da ngeen dajale seen doole. suñu doole ñun ñëpp képp kuy fecckat. waaw kenn ku képp kuy fecckat. Mhm. nga def ci sa doole bokkut ak jaal. Mhm. loolu bokkut ak jaal. woykat yi tam dañuy ñëw yi déggul ma la woykat yi. sama papa ci kaw Youssou Ndour laa koy commencé ak sama patron Pape Diouf. Mhm. ñoom ci social rek la ñuy dox ak Wally Seck. ba ci xale yi. ñoom ñëpp kenn. Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te